da ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futur Média dal xibaaru marax yeeg ponk yi ca gën a fës bokk ci coowal suuf eh, bi lëmbee eh, Sénégal ca jame it ña ngay dund eh, lu ni mel askana wa nag ñu bare man koo joxante loxo di sàkku rek ñu jox leen nag seeni suuf ay hectare mu ëpp nag ay junni junni ñu ne ñu ko jegleel benn parc ña moom di ay baykat ñoom ñu ne nag loolu duñu ko seetaan benn yoon na yëf dakk mbaa bokk daanu gën yëngal ba ñu dégg leen euh, ci Ndakaar it ni ngeen ko gisee woon ci fan yi weesu yëpp coowal suuf li nga xamante ne moom it mu ngi fi lëmbee ci Grand Dakar jàpp Wakaam euh, suñuy ndaw yàgg nañu fa di ngeen gis reportage bi euh, ci biir xibaar yi jàngoro yi mbas mi nag ndeeteel gi moom mu ngay gën di yokk fi mu ne nii nag mi ngi ci juróom-ñett fukk ak ñeent gannaaw ñaax ñi nga xamante ne ñàkk nañu seen bakkan démb dolliku ca lim boobee bisub tey jii di dibeer bi nag lu toll ci téeméer ak juróom ñoom ñoo ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett euh, test yoo xamante ne euh, def nañu ko fête de la musique nag euh, amal nañu ko ren naam waaye mu wute lool ak yi weesu li ko waral mbas mee fi jaar ñu bari nag ci artistes yi xam ngeen ni janootuñu ak seeni public mu bari lool lu mu kon gàllankoor waaye lu mu ci mën a doon ak anam ya ñu koy defee muy télévision yi jaarale ko ci xarala yi mu mel ni nag yu yees daal daanu ko fent lépp rek dañu koy tënk ci mbas mi ndax moom moo ko waral mu bari artistes yi leen gis ñoom it ci biir xibaar yi mbokki ponk yaa ngi ni bu ngeen taaxeer la tuuti ñu faram fàccee dal leen jàmm ci xibaaru marax ñu doore ko rek ci tënk ak commissaire bi à traité ñu gën ko xam nag ci Boubacar Sadio moom nag woolu nañu ko rek ca brigade des affaires générales bu division des investigations criminelles lu waral ñu woolu ko xamaguñu ko waaye li leer rek mooy wuy ji na kon direction boobule lees mën a jàpp nag mbaa sax ñu fàttaliku ci moom moom mooy kooku bindoonu bataaxal sànni mu jëm nag ci njiitu réew mi Macky Sall ci anam yi mu yore réew mi loolee nag la bindoon kon woolu nañu ko euh, ca brigade de des affaires générales waxaguñu lan moo tax euh, du ñàkk nag ñu dellusiwaat ci ci ni mu gën a yaatoo ni ma ko waxee woon ci ndoxteel li ak coowal suuf bi nga xamante ne nag mi ngi lëmbe euh, Sénégal fële ca jama ma nga ca diwaanu Ndar askan wa nag ñoo mànkoo foofu ne li ñu gis duna ko seetaan benn yoon lu toll ci junni junni mbaamu ëpp ko ci hectare ñu jagleel ko ñoo xamante ne nee nañ ay baykat la ñu te xamuñu fenn fu nu ko teg loolu nag la ñu daal di bëgg mu dakk nag nguurug Sénégal na jël ay matuwaay def ab odi jëmale ko ci suuf seek yorin wi Ousseynou Diop. ci diwaanu Ndar Géej ñu nemmeeku yu ci bari ay bërëb yoo xamante ni lu jëm ci wàllu ko suuf sa dañ koy xëccoo wala boog sax léegi sax mu am ay jafe-jafe ba ay nit faatu ca région bu Saint-Louis moom ba léegi loole ñu ngi ko fay nemmeeku fu mel na Mbaan Dodel ak Fanaay foofe nag ay jafe-jafe yu mag ñu ko daan nemmeeku lu matul ñaari fan jama jël wàllam askan wa ñoo génn wane seen naqar ci suuf boo xamante ni ñu ngi koy xëccoo ak waa parc bi. loolu la ñuy déplorer parce que booy àtte ñaar ñuy xeex ñaar ñoom ngay déglu te ñun xeexuñu xuloowuñu duñu bëgg rek développement réew mi. ñun nag suñu ay parcelle comme ay doomu baadoolo lañu canal bi ñëw jaar fi pour véritablement xañ ñu li ñu moom. malheureusement ñun bëgguñu xeex bëgguñu xuloo lu ñu bëgg mooy njiitu réew mi àtte ñu ak waa parc bi mm. bu fekkee parc bi moo am dëgg ñu xam bu fekkee ñun ñoo am dëgg ñu xam loolu nag nun koy xamee mooy ñu jël li nga xam ne mooy aménagement du territoire ñu ñëw àtte ñu comme dafa am litige Cheikh Tidiane Diong journaliste la nee na nag élus locaux yi léegi ñoo war a jël seen matukaay ak état bu Sénégal. tey municipaux yi il faut ñu am njëriñ bañ a bàyyi maire yi rek ñu jël suuf si di leen di ko séddale nu mu leen neexee cela ne veut pas dire maintenant que maire yëpp ñoo mel noonu am na maire yoo xam ne ñu ngi séddale suuf na mu waree séddale suuf daal je pense que état bi war na ci gën a dugalaat loxoom euh, euh, aussi moom tam di séddale. waaw forum civil seeni xalaat mooy état bi dafa war a taxaw ci mbir mu ni mel ndaxte suuf si nañ koy jëlee nekk na lu metti ñun loolu mooy suñu war falu ñun ki ñu fal mooy autorité suprême monsieur le président de la république moo war a monter au créneau pour moo tax ñu xelal ko suggéré ko dafa waroon arrêter affectation yëpp cest à bu fi kenn joxeti suuf ñu def audit nag Sénégal gi yëpp suuf si fu mu toll léegi nag comme ñu ngi dans le monde moderne dugal ko dans internet ba pare nag léegi affectation gi ñëw ñu encadré ko aussi bien au niveau des communes et au national suuf doon loo xamante ni boo ko waxee rek sa xel dem ci jafe-jafe yi am ci Sénégal région yu bare ñu fay nemmeeku ay xeex wala boog ay tëkkonte mu mel na kon jot na nguur gi jël ci ay matukaay yu wóor. donc jot na nguur gi jël ci ay matuwaay euh, coowal suuf loolu nag lu ci ëpp diggante euh, promoteur privé yi lay doon ak euh, askan wi loolu nag la ñu seetlu fële ca Grand Dakar ak Wakaam it coowal suuf mu nga fay lëmbee daa ñu jaay am du ñu jaay lu mu ci mën a doon Pape Fara ñi ngi yeggoon na fa àndoon ceeg Amadou Ba. wàllu xëccoo suuf bëri na lool jamono ji fii ci ndakaaru su nekkul ñuy caxat-caxat lii di littoral bi bras de bu métti diggante promoteur privé ak askan wi ca Grand Dakar am na ñu taxaw nag di wax déet ñi nga xam ne ñoo nekk njiit yi ngir ñu bañ a caax saaxee li nu mel. Grand Dakar bi yëpp pare nañ lépp lu ñu xam ne nga xam ne sur le plan juridique que ça soit des avocats des juristes et tout Grand Dakar bépp ñoo pare volontaire soutenir famille boobu ba ñoom ñu am li ñu bëgg ci seen teeb sago. ñu am njàqaleeg ñii di famille Dieng ñoom dàq ñu sax jaay lii di seen kër gi waaye dañoo bëgg ay garantie yu wóor. ah mairie bi parce que moom lépp lépp lépp lépp moom moo ñoom ñoom ñaar ñoo si ànd ah. lépp ñoom ñaar ñoo si ànd parce que. ñun dañoo am ay dëkkandoo kii jaay nañ seen kër ki ci ginnaaw jaay na këram ñi jaay nañ seen kër xam nga ñoom jox nañ leen cër kenn yëgu leen kenn déggu leen ñun loolu lañ bëgg ñu wooñ ci sutura njëkk ak teranga ah bu ñuy jaay suñu kër ñu jaay ko bu ñu jaay ñu bàyyi ñu fi wax dëgg yàlla ah Jean Baptiste nag génn si bàyyi ñoog tubaab bi. lu nu mel nañu nemmeeku ca diwaanu Wakaam cité avion ab collectif judd fa di bañ ñu daggatee ba pare jaay seen suuf. buñ ko daggee ñun yëguñu kay ça veut que ay privé lañ koy jox loolu ñu dul nangu xeex bi nag cité avion lañ siy woo dañuy soog a démarrer tey xeex bi nii yàgg nañ ko def mais te dañ commencé fësal. cinquante mille habitants nan la mën a yeewoo si quartier te amul dara espace la moo tax espace la laaj nag pour ñu defaral ñu yëpp ñi ngi interpellé président Macky di xaare nag njiit yi daal ci yëy yàbbi collectif bi nee nañ di leen def seen kéem kàttan bu ko defee seen suuf sool nga xam ne moom la ñu desee ñu mun leen koo bàyyil foofu ca wakaam Pafara ñi nga beneen kuréel a ngi nii juddu fële la ca euh, jàmmalaay ñoom it euh, la ñuy sàkku rek mooy ñu bañ a saax saaxe euh, peggu géej gi lu ko may naqarlu nañu leneen muy nag mbënn mi nga xamante ne bu ñu moyul nee nañ nawet bi ren dana am danañ daañu dund ay jafe-jafe muy mbënn moo xamante ne saa su ne ña ngay jànkonteel ak moom Ibrahima Sarr moom mooy coordonnateur collectif boobu ñu teewlu ko ci micro Amadou Ba. ñun mbalit mi ñu ngi bëgg rey mënuñu nañu. ah ah occupation anarchique bi lay construction irrégulière c'est léegi ni ñuy wax ñuy wax non non non si le maire ne dans vingt huit jours si le maire ne répond pas maintenant ni ñu koy waxeeti euh, euh, le préfet va donner mais le maire doit répondre dans les vingt huit jours qu'est-ce qui l'empêche de répondre de dire que c'est une zone là bi nga xam ne nanguma ñuf kii dafay am pollution ne ne construisez pas le le le préfet ne peut pas passer outre cette décision du maire préfet bi mënul mënul mënul préfet bi mënul tegg décision maire bi mais su fekkee 28 jours yi répondre peut-être ku nekk lu waay deex def parce que am na loo xamee ni waruñu ko nangu fii suñ fi tabaxee ñi ñuy wax ñëpp ñuy tabax ñoom yaakaar naa ne xamuñu luy géej amuñu xel par exemple fii rochers yi fa ñu nekk fële rochers yi nekk euh, corniche ouest bi c'est y a des rochers fii c'est le sable y a l'érosion côtière l'érosion marine voilà ku fi tabax kat itam na ngay sonn fii dans 10 ans géej gi ni ñu koy waxee dina la fekk si et que ñun ñu nekk fii ñun ñi fi dëkk dëggagum en attendant su mbés su ñu fi defee béton bi fii les ruissellements d'eau les eaux de pluie napp bi moo koy absorbé suñ fi defee béton nu ñu koy waxeeti ñun sunu kër yi nañu inondé fu mu nekk tabax fii amul du njariñu kenn. liñ ko waxee woon ci ndorteelu xibaar yi lu ñeel nag uh, mbas mi uh, ci réew mi ndeeteel gi nag uh, ma ngay gën di jéggi dayoo tolluwaay bi fi ne ñu ngi ci juróom-ñett fukk ak ñeent ñaar ñoo ñàkkate seen bakkan démb ci dibéerub tey ji nag yemook ñaar fukki fan ak benn ci weeru juin atum 2020 lu toll ci téeméer ak juróom ci doomu aadama ñoom ñoo am jàngoroy mbas mi ci juróom ak juróom fukk ak juróom-ñett test yoo xamante ne def nañu ko juróom-ñeent fukki ak ñeent nag di cas contact fukk yaak benn bokk ci wàllante googu ñu xamul ñu bàyyi ko ci Wakam Mermoz Mbao HLM Liberté 6 Yëmbal Grand Yoff Parcelles Assainies ak Ziguinchor ñaar fukk ak benn nag ñi ngi xeex fi mu ne xeex bu metti ngir mucc ci jàngoro ji ndax ay cas grave lañu mooy tolluwaay bi ci réew mi. ñu des ba tey ci wàlluk wér-gu-yaram ñeel mbas mi ba tey fële ca Fatick ak tolluwaay ba foofu it ñu gis ni ma ngay raam nag ndax fi mu ne nii ñu ngi ci fukk ak juróom-benn yoo xamante ni ñu ngi leen di faj jamono ji mu nekk kaa yoo xamante ne nag jaadu na askan wa nag jël ci ay matuwaay ci kaw rek ñuy fegu moo waral nag kilifa yi féete foofu fexe rek ba askanuk ñaaxaar ak Fatick jotee ci ay masque lu toll ci fukki junni ak juróomi téeméer jot nañu ko séddale Aminata Godiaby ay ndaw ci seen wet ay mag yoo xam ni dañu am pas-pas loolu ñoom ñu doon wër ci mbeddi Fatick yi doon séddale ay masque ñoom ñi nag ñu ni lu tolloo ko juróom benn di junni masque de protection le ministre bi ñu dénk wàllu plan Sénégal émergent teg ci seen loxo ngir ñu séddale ko askanu Fatick jaar nañu ci mbedd yu bëri ci marché central bu Fatick ak itam ci gaaru ceer bi ngir rek joxe li nga xam ne moom moo di masque yooyu li tax nag ñu def lu ñu mel moom moo di jamono yi kaawu coronavirus yi dafa gën a bëri ci biir région bi rawatina ci biir district sanitaire bu Fatick ndaxte am nañu lu tolloo ko fukki kaaw aw coronavirus ak benn ci biir commune bu Fatick mu bokk ci ay élèves gendarme. tey li ñu tax a def journée tey bi dafa confectionné waat 6000 masques pour indil ko ci population yi pour ñu respecter les gestes barrières ñëw aux côtés des populations pour ñu mun a respecter les gestes barrières. moom moo waral il journée tey bi ñuy distribuer ay masques. les populations marché bi lañ jógee léegi dem nañ ci charité yi jox nañ leen den jox nañ leen des dem nañ ci moto jakarta yi jox nañ leen des masques dinañ dem ci jox leen dinañ dem aussi gare routière euh, jox leen. ci commune bu ñaaxaar sore tuuti ak bu Fatick nag foofu bàjjenu gox yi lañ doon dooleel ndaxte teg nañu ci seen loxo lu ëpp tuuti ñeenti junni masque ngir rek ñu joxe ko askan yi nga xam ni ñoom ñooy yeewoo ci village yi ngir rek ñu mën di respecter soluk masque bi ndaxte ñu bëri ba léegi dafa mel ni xamaguñu njëriñ lii. su ñu gisee ne déconfinement progressif mu ngi am te gis nit ñi ñu ngi commencé di bàyyeeku yaakaar ne lii ak léeg yooyu dañ leen di woowaat ñu ñëw. armeel li leen waat ne leen nag dem leen ngeen gën a yeewaat seen moroomu jigéen ñi parce que tam jigéen ci ñu ngi daw fu nekk donc jigéen boo ko protéger rek protéger nga famille am ba feebaru coronavirus duggee ci région bi ba léegi nag ñuy fàttali ne jot nañ fee am lu tolloo ko ñaar fukki nit yoo xam ne am ñu feebaru coronavirus kenn ki moo gaañu ñeenti nit nag ñu ñuy xamal ne ñoom jot nañoo wér ci ñaar fukk yooyu ñii nag dañu taxaw ngir xeex ci wàllug fegu gi moo waral nag tey ji ñu mànkoo doon benn di wër rek euh, tefes yi di ñaax ndaw ñi euh, ci jàngoro yi mbas mi secretaire général bu cadre des concertations euh, citoyens di Mouhamed Samb moom moo ko jiitee mi ngi wax sax ne lu toll ci juróomi téeméer ci ndaw nag la ñu teg rek ngir ñu wër tefes yi ñu lu ko ci micro Amadou Ba. recruter lu ñuy wax jeunes yoo xamante ni daa ci la njëkk muy yoof di ngor di almadi di Cambérène di di Malika fii may wax ak yéen ma mbaaw seeni i casquettes yi ci yëpp dem nañu depuis 16 heures noo ngi commencé dugg sur le terrain ñu yor ay hydroalcool yor ay masque sol ay gants dugg ci nit ñi même suñu la jànnee dugg ci nit ñi yow waxal li nga xam ne moom nga war a wax suñ ko defee yaakaar naa ni ak ñaanu xalif généraux yi muy muy Tiwaawan muy Touba muy Njaasaan muy muy Yoff kii wóor na yàlla am nañu yaakaar ni maladie bi na fi jóge tisit yi ñu sor gis ngeen ko toutes les mesures barrières yi nuy wax mi ngi fii nu teg donc lii rek message la ma ñu dellu wax rek euh, ca jumaa ji nga xamante ne nag moom la lakkoon muy euh, jumaak euh, mboojeen boobu tey nag am nañu joxante loxo di jullit nag bokk ci tarixa yu ne ñoo daal rek manko ngir nag tabaxaat jumaa jooju bu weesoo lool nag naqarlu nañu loolee amoon bokk na ci Gilbert Moussa fay moom moo jiite kon ressortissant yu mboojeen yëkkati na ay kàddu ñu teewlu ko bépp doomu mboojeen dañu dajale li ñu am pour wane ne Mbodiène benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar muy xale muy mag muy catholique muy jullit muy protestant mooy même ku gëmul yàlla ñu dajale suñu tuut indi suñu enveloppe de cinq cent mille en en guise de soutien et de solidarité avec la communauté musulmane avec le village de Mbodiène ñoo bokk ndey ñoo bokk baay suñu armeel yi benn la suñu lépp benn la suñu kër yi benn la suñu famille yi benn lañu donc pour wane ne vraiment lii li fi xew ñu ngi koy naqarlu ñu ngi koy ñaawlu métti na lool lool lool lool te ñu ngi ñaan yàlla lii bañ bañ bañ fi amati. jàmm ci la lépp xëj ñaawoo wax lu ñaaw wala def lu ñaaw xëjul suñu diggante. ce les actes qui ont été commis à la c'est des actes contre croyant c'est des actes contre tout croyant kem ku gën yàlla ku gëmul yàlla sax li kenn xel mënu koo nangu xëy na xëy na ñi ko def xëy na dañu réewoon rek yàlla na walbati yàlla na yàlla walbati seen xel ba ñu ànd ak seen sago te fii ñu ngi koy ñaawlu di ko ñaaru en tout cas vraiment nous souhaitons que pareille chose ne se répète plus quoi Abdourahmane Diallo ak euh, Mamadou Gueye ñu euh, taataan kàddu yooyu marché central euh, bu Kaolack commerçant ya fëgg nañu seen gémmiñ yuuxu li ko waral mooy seen cantine yooyu nga xamante ni mënatuñu caa yegg ndax ndox mu bon ma nga xamante ni ma ngay lëmbee marché ba du ñoom képp clients yi tamit ña ngay wooteek warlu fi mu ne nii nag ñenn képp la ñu wax ñu taxaw ci na mu gën a gaawee muy nag njiital bokk moomeel ga dañu ci ànd ak Ibrahima Diamé ay ndoxu foos fee dal ci yenn endroit biir marché central bu Kaolack ñuy door a tàmbali nawet xet bi melokaan bi kenn mënu ko nettali. gis ngeen fi ngeen film nii yëpp gis ngeen ndox mi ni mu demee. Euh, te loolu euh, lenn waruñu ko lu dul ñàkk canal yu ñu tiré parce que dañu daan def euh, chaque événement bu comme maanaam bu nawet bee jub si ñu def tëj marché 2 jours 3 jours ñu tiré canal yi su ko defee ndox mën a dem mais de ñun déclaré nañu ko mairie plusieurs fois xet gu bon la dund chaque jour ay canal lii du ndoxu foos la du ndoxu taw quoi te yàlla ji taw premier taw bi sax bi ñuy def fii yëpp dafa rende woon situation bi tax ba commerçant yi féetee e a a ba fu coono kemtalaay kàttan sonn nañ lool lool. non seulement benn nee nañu gisatuñu client waaye feebar yi ci tàmbali di ci jëlee moo leen gën ëllëm. loolu ndax ndox mi xet gi mu àndal rek musiba naaru laay la feebar bu ne ñoo ko fi jëlee fii may wax ak yow nii man dama soj ba mënuma wax. ñi ma dendal nag waxaalewuma leen ñëpp tëdd feebar ndax ndox mu salte mu bon mi gisatuñu client gisatuñu ku ñu mën a jaay ku ñëw ba fii da ngay wuññeew. bu ngeen taxawee fi ba léegi gisulum kenn ku fi laaj dara. ñu ngi nii toog di xoole dañoo bëgg ñu dimbale ñu da ko diw sa ba mu set wecc ndax lii feebar la man sinusite laa yor dañ maa tere xet gu bon te lii ci lay dëkk bët bu set et pourtant moo ne de bi gouverneur jëlee ay dogal ci xeexu mbas mi di tëj marché bi le dimanche liñ ci sorale woon moo di ne ñu mën ko raxas waaye furaas kenn mosu ko def bu ñu sukkandikoo ci délégué marché bi rien amul lenn lañ fiy def par dimanche léegi nag ñu ñu appelé samedi pour dimanche bii di ñëw Kaolack di dundu ay ndoxu force yu bal di wutali seen cantine ndax caniveau yu bouché bu tawee nag beneen affaire la dañuy tëj toog seen kër. ñu àddu nag euh, ci bis bi ñu jagleel euh, musique euh, muy fête de la musique ren nag wute lool ak at yi weesu li ko waral mbas mi fi jaar fii ci Sénégal gis nañu ne artistes yi xam ngeen ni yàgg na lool janoowunu ak seen publique loolu nag mu gàllankoor lu bari bari ci seen liggéey Pafara Ñing ak Amadou Ba dem nañu rek seeti Daniel Gomez moom mi jiite association des métiers de la musique bu Sénégal sekk nañu waxtaan ñu teewlu. yu triste yi ci la tàmbali li nga xam ne moo nekk fête de la musique ñu ngi ko fekk ci studio am foofu ca jëppal Daniel Gomes di jéem a def nag bànneex ci xolu ñi nga xam ne dañoo bëgg musique integração em nossa fête de la musique boo xam ne wuuteeg yi fi dem am tombeek lii di coronavirus tax ba président association des métiers de la di wax seen i jafe ak ni ñu war a taxawee. bas bi dal nañu problème la. parce que fu mu nee ni daf ñu dal complètement ci mil comme ci milieu informel bi. lu am importance moo ñu considéré ñu comme comme liggéeykat nga xam ne bu ñuy fayeeku fu am na lu ñu ci comp pour euh, caisse de sécurité sociale lu ñu ci comp pour pour sa sa caisse de retraite lu ñu ci comp bu nga xam ne li nga mën a yow am li li nga mën a dem banque sax gars yi def la benn prêt nga def ci benn projet. lii moom bu weesoo na ñu toog waxtaan booloo. li jëm ci ndimbal li nga xam ne nguur gi daan na leen koy jox ngir wàññi jafe-jafe mbas mi artiste bi nag mu ngi woo ñi di collègue am ñu xool nan lañ koy gérer. ba suñu sago dal xaalis boobu yëpp la ñuy trois milliards yi ñu teg ko ñu ñu xool ñaata artiste ñaata acteur culturel la ñu waaye bu suba bu ñu la waxee artistes yi bu ñu leen dajaloo ñëpp cent mille arti artistes la ñu. dinañu am problème fii ak trente mille trente mille francs CFA la ci am trente mille francs CFA xanaa ak ñetti weer yu weesoo cest que dix mille francs par mois lañ lay jox day compliqué. lu ñu war a def. mooy xanaa ñu xool nu ñuy yokkalee xaalis bi jàppale entreprise surtout culturel yi parce que entreprise culturelle yi ñooy ñuy tax a liggéey. naam sax jafe-jafe yi métti na ak coronavirus bi. Daniel Gomes nag ak li nga xam ne moom moo nekk confinement bi profité na ci ba daal di def ab single boo xam ne bu génnee dina neex lool ñi nga xam ne ñooy melo maan yi. ngeen ko gisee noonu nag mu nekk ci studio daañu ko màggal du ñàkk waaye xëy na ci anam yi ñu koy defee la ci télévision yi jaarale ko ci xarala yi ku ci nekk it yaa ngay waajal lu am solo ci fête bi ñu jagleel wàllug musique xëy na li ci gën a am solo mooy wàllug fent gi Ibou Diouf. at bu nekk bu ñu yegsi woon ci ñaar fukki fan ak benn ci weeru juin doon nañu taxaw seetlu. waxtaan ci lépp lu aju ci wàllu musique amal ci ab xumbite bokkoon na ci ay concert yu doon dajale mbooloo mu takku atum ren ji nag ñu ne coppite moom am na ci li ko waral di mbas mu bon mi di coronavirus mënul demee nag dañ ko daan defee saa su nekk ñu ne nag jamono ji moom faw ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu musique ak itam ñi nga xam ne ñoo yore chaîne de télévision yi ñu xool li ñuy doxale rek ngir mën a bégal képp kuy melomaan ci loole nag ñu ne jël nañ ci ay dogal bokk na ci fexe ba ñi nga xam ne rek ñooy safoo musique ñu mën a am loo xam ne dina leen fàttali jamono yiñ ko daan dund te dara daawu leen gàllankoor. ñu nag atum ren ji fas nañ ko yéene jaarale ci télévision yi ak itam ci internet loolee tamit dina saxoo ak lépp li nga xam ne noonee lakk kilifa yi soxla ngir aar seen bopp ci li nga xamante ne mooy mbas mu bon mi di coronavirus ñu ne nag ay jamono doon nañ gis ay saal yu fees dell stade yeeg yenn bërëb yi doon dalal ay artistes yoo xam ne ay kàngam lañ ci wàllu musique waaye atum ren ji nag loolee du mën a antu bu ñu mënee def ay production tamit ci télévision yi lañ koy amal wala si yenn studio yi jaarale ko ci internet ñu ne nag loolu du leen tere benn yoon màggal li nga xamante ne mooy musique fii ci réew mi ndaxte fête bi moom yàgg nañ ko màggal te du atum ren ji la ñu bàyyi loolu ñu ne nag bi yoon moom ñi nga xam ne ñu yor programme chaîne de télévision yi la ñuy déglu ak itam yenn artistes yi nga xam ne fas nañ yéen a jox seeni melomaan ak ci seeni fans li nga xam ne mooy rendez-vous jaaralekat ci internet ngir màggal bu baax fête bi di fête de la musique ma mbas mi moo ko waral ak i jafe-jafeem waaye xel mën naa dal xëy na ci euh, artistes yooyu mbooleem ñi nga xamante ne ñoo yëngu ci wàllu caada jëruñ yi nga xamante ne moom lañu ñu ko dénk nag fas na yéene euh, jagle leen koppar ay chèque lay doon ñu tàmbalee ko joxe nag lu ko euh, dooree ay bis bi ñu dëgmal Abdoulaye Diop jëruñ ji ñu lu ko. aar day leer mu jox leen 3 milliards de lu ñu njëkk def mooy ñu ne secteur bu nekk sous secteur bu nekk nañu organiser seen diggante seen diggante mooy lan. ñu ñoom ñëpp ñu d'accord kan mooy seen président mu leen di représenté kan mooy pon porte-parole loolu def nañu ko ñu yónni ñu ko depuis ñu yónni ñu loolu ñoon ñooñu yëpp président ak vice-président sous-secteur ñu def leen si benn structure bu ñuy wax euh, comité d'orientation loolu tam pare na si ñun lu ñu leen wax mooy tey mooy ñëpp ñoo xam ne bind nañu si sous-secteur yooyu ñoom d'accord nañu si dispatch yi ñuy def ban modèle la ñuy def organisation suñ ko dëggalee ba pare ak seen listing yi ñu bind ñu tam pour nañu kan lañu ban structure la ñuy jagale seen chèque bi tey ñoo xam ne jot nañu seen chèque yi ñoom ñooy def liggéey boobu yëpp su ma xoolee waa art visuel xam nga art visuel ñoom seen marché bi maanaam mooy marché euh, biennale des arts mbaa foire ñu def à l'international ñooñu tam d'accord nañu tey installé ñu seen communauté de sélection ñoom dañu ne ñoom lu ñuy def mooy dañuy xool seen budget bu ñu am mooy seen 500 millions yi ñu dispatché ko par région en tant que fonds densité ñu de région région bu nekk ñu jël xaalis bi ñoom seen commité boobu jënd jënd de arts visuels ci artistes yu nekk ci gox boobu mu ne ko def à la disposition de de la DPC la direction du patrimoine kooku mu jox ko def ko ci édifices publics yi ci ministères yi ci tous les bureaux nangook eh, ci kàddu yooyu li ñuy tàggatoo mbokk yi sant leen gërëm leen bu baax a baax yéen ñu fare woon ci machine bi ak ñu jàpp ci xibaar yi eh, ba mu sotti dig daje 20 xibaar yi ci nasaraan ak Cheikh Tidiane